mu ne teg moom Lat Joor ba yàgg sumal tafata mu ne gees moom Lat Joor al amira buur ba daal di gestu ilal xaadi jëme ab xar kanamam ak xool kaayam ca xaadima jaxate kala moom Lat Joor Lat Joor ne xaadima jaxate kala waxaale yan baqi lana an nukallimuhu fi amrina ah xaadima jaxate kala fi ne kat moom yell nu wax ak Serigne Touba mi ca sunu mbir ma ndax ba nga fi attee ne mënees na xeex ak Amadou Seyxu ca Samba ndax da doon wooteeg wilaya ba ne ab yonent la mënees na ko bu ca xaree kon mënees naa xareek moom ba faat ko ma xareek moom ba faat ko yow mii noon mënees naa jàpp ña ko doon jàppale ca xare ba ay jaam lekk seeni alal sëriñ tuuba am kuy dem di jébbalu ca moom muy Ibrahima Koddu Diop sëriñ Touba ne ko foo jële alal ji mu ne ca xareb Samba Sadio ba laa ko jële woon mu ne ko delloo ko ndax loola daganut yow mii nag yaa noonu loola dagan na sëriñ Touba ngi nii yaa ngi nii maa ngi nii sàkkoo na noo moom ngir waxtaan ci loolu amut tey nag am na daje nanu nan wax ca loola la joor ne jak xaadima jaxate kala ci kër kumba kala ndeysaan boromam xel te xel ma rëy na te mooy buur te lislaam jam na ko wa xaala yan baqi lanaa an nu kon nag yelle na ci noonu nag njeem jàkkaarloo noog sëriñ Tuuba nu wax ca loola fi amri naa ci sunu mbir ma saalika moomee is ngir naqadal fatwa moom sëriñ Tuuba firi woon na fatwa ba nga defoon atte ba nga waxoon yow xaadi sëriñ Tuuba teppi woon na ko wa haawal naa lijtimaahiha te sakkoo na noo dajeg moom Sëriñ Tuubaa bi ca mbir mooma wax ca waaye falam yaxsul mm, daje ga amut daje ga amut wal aana léegi nag xat asala daje gi am na nu nuy def nan wax ak moom fa xaalal xaadi xaadi ma jaxataay ngay tont daal di wax ne Lat Joor naxam waaw waaw loolu day noonu la amee an naa naka man xaadi ma jaxate day xultu ma waxoon ne anna rajula naka bépp waay boo xam ne daxaa ma ngay wootewu nu boowata ak yonent wa haaraba te muy xare ak nit ña allah ca loole fa ubiha daga na lees na damuwoo estour deretam maa waxoon loole de wa akulu ma xunima tayit dagala daga na lees na es lekk la nga xam ne màng la moom minhu jëlees na ko ca xare booba maa waxoon de wa xaaxu man usira mi man maahoo te it maa waxoon ne dagan na es jàpp ay jaam ña ko doon jàppale ca xare ko kookee doon wooteb yonent maa ko waxoon de man xaadima jaxate maa ko waxoon man mii de doon leen te ni sëñ Tuubaa mii moo tebbi wax jooja moo tebbi wax jooja man mii maako ko waxoon desam ñëpp ne tekk ni dirim sëñ Tuubaa ne tekk Lat ne tekk xaadima jaxate ne tekk ab diir wasakata fa ñoom ñëpp ñu noppi Sëriñ Tuubaa noppi xaadi noppi la noppi mbooloo ma kenn rafut kenn yëngatuwul ba ca ña kaw garab ya ñëpp a nga ne teg Kajoor ne lew aljamahatu mbooloo ma ñëpp ne teg fa sakatatil jamahatu mbooloo bari bari dara yënguwul samanan ab diir zamanan fa xaala sayxu sëriñ Tuubaa ngay tontu daal di ne jaxate fa xaala sayxu lil xaadi sëriñ Tuubaa ne xaadima jaxate hal ndax yow xaadima jaxate takallamta li ujibaka da ngaa wax man ngir ma la xaala naxam xaali ma jaxate ne ko waaw waaw ma takallamtu waxuma ludul ilaa li tujiiba nii ludul nga tontuma ci loolu yow sëriñ Tuubaa waaw waaw xaala sëriñ Tuubaa ne waxat asinta lii ndeysaan gis nga ne ma ngi koy jox toujours cërëb bàyyi cërëb kilifa ndax jox nga man sëriñ Tuubaa ndigal ci ma tontu la yow xaadima jaxate kala ci wax jooju jox nga ma ndigal fil jawaabi ci tontu li xaala xaadima jaxate ne ko naam waaw jox naa la ndigal nga wax kay waxal xat asintu lakka jox naa la ndigal waxal ñu dégg fil jawaabi ci tontu li ndeysaan xaala sayxu sëriñ tubaa ko fa ma fa fa fa an yashadu lakka fa man yashadu lakka kan moo la jox seede seede su wér ne bi anoo naka amadou sayxu moomee ñu xeexal ba rey ko i daxa daf doon woote woon nu boowat ak yonent yow xaadima jaxate kala kan moo la ne sayxu amadou moomee ñu rey daf doo daf doon woote woo ak yonent kan moo la ko wax seede su wér si fan la jóge qaala alxaadi xaadi ma jaxate kala ma ngi koy tontu ah xanaa ahlu kajoor waa kajoor ñoo ma ko wax xaala sayxu sëriñ Tuubaa ngay tontuwaat ne ko ahlu kajoor waa kajoor ñoo la ko wax ah waa kajoor googu nga xam ne ahdahu ay noonam lañu waxu samaahu te ay xuloowaale lañu ca moom wa muaribuhu te dañuy dañuy geranteeg moom ah a toqabalu nan ngay nangoo saadatum seeni seede nan ngay nangoo seede bopp ab noon moo ko seedeel ab noonam di nga nango doolu yow xaadima jaxate kala nooy nangoo loolu fii ca mbir ma xaala ma ngay tontuwaat alxaadi xaadima jaxate kala ma ngay tontuwaat Sëriñ Tuubaa ne ko laa loolu sax moom waruma koo nangu walakin waaye ahlu samba saajo wa samba saajo ci boppam allazina ñoom ña nga xam ne waqaxat tàbbi woon na indowum fa ñoom xare ba alwaqixatu xew-xew ba ñoom tamit wax nañu loolu sëriñ Tuubaa ne ko a ah, qaala seyxu sëriñ Tuubaa ne ko ahlu Samba Sadio ñooñu nuñ lay waxe loola ñooñ nga xam ne atatuhum dañoo toog rek mu dikk fa ñoom al asaabu kuréel ya min xaraxin bàyyi koo ca penku wa min xarbin bàyyi koo ca saw songante ba tàmbali waqaatil fitnata guerre ba daal di tàmbi fitna ja tàmbi ca dëkk ba kangi kangi jaasi yaag ñaxali fas yaag ba mbi gileem ya ñooña kay mbir ma da leen a bett yëguñu sax dara ca mbir ma indewum fa ñoom wowum ñoom kat laaya suróona xamuñ ca dara waa waa Samba Sadio xam nga kon yaari wax yooyu taxu toxu na fa maa yudrihim bi daxwaa wal mudaha ana lan moo leen jotali sax ci am na ku kalaameeg ku ñu kalaame am na bu wootante ca loola ali ca mbir ma ba xëccoo di ca am ñoom yëguñ ca dara kat nag bàyyi xaadi ndeysaan kajoor gépp a ngi ne rëm ñëpp ngi déglu ndax wax ji ak firi ak tontu gi sëriñ bi tont ci ñaar ñi kenn ki buur kenn ki di xaadi sëriñ Tuubaa koo xam ne ci tolloog fanweeri at rek ak nangam la tol te jaaxal mag ñi jaaxal borom xam-xam yi day waar lool ñëpp jaaxle ci Serigne Touba mii fasakata hmm. fasakatal xaadi xaadi ma jaxate nag daal di noppi ne teg ne teg ne teg Lat Joor ne teg mbooloo teg Serigne noppi wa sakatatil jamaahatu mbooloo mépp ne dirim ñépp noppi unay hatan ab kenn waxul ndeysaan cey balla ma ca ngay sëtëb balla ma ca ngay sunu sang bu am ba aajo am war ma am ngor balay sak saajo ndeysaan suma xaala a seyxu topp nag ba lépp ne tek ñëpp yi xalaat ba gis xaadima jaxate wax ne ayyuhal waladu yow sunu doom sëriñ Tuubaa lay waxal de ndeysaan yow sunu doom dalal naaka alal maliki noo la doon jàngal di la tegtal yàlla di la xamal waaye kat fii nu toll nii fa sabaxtanaa raw nganu fii ca njàng ma kon xan an latta maa ngi lay ndokkale yow sëriñ tubaa waaw akbar maa ngi lay ndokkale yow sëriñ tubaa man xaadima jaxate gàkk naa gàgganti nga ma lislaam jam nanu nangu nanu ndokkeel naa la ca loola su ma annii topp maa ngi lay ndokkel man xaadima jaxate kala ndeysaan fa ashanaahu lahu fa ashanaa lahu ñu daal di nangoonte loola nag wasallamahu ñu daldi di jàmmoo ca loola nag fan kasafa mu dal di wuññeeku maanaam mu jóge fa alxubaaru pënd ba fan doon xalaat aw ay ak guerre far dëgg ñëw xaadi nangu Lat nangu ñu nangu ne lislaam jam ne leen juum nañu ñu jox Sëriñ Tuubaa loxo ndokkeel ko Kajoor wéy noonu la demee woon